mooy li ñu ne woon dañ koy faran fàcce ñu bëggoon nag euh, mbooleem senegale yi xam ni lii lu doy waar la lu garaaw la ñu fexe ba ci suñuy jëflante wala li war a doon suñuy yitte bis ni ki tey mooy li jëm ci anam yu mel nii ndax lii mooy réew mi bés bu ne ñu fenkal ñu ay wax yoo xam ne amul benn solo amul benn njëriñ ci réew mi boo demee ci réew yi nga xam ne tey tabaxu nañu defaru nañu teewul bés bu ne suñu xëyee ci yu mel nii la seen waxtaan di nekk boo bëggee ràññetle màndarga réew mu dellu gannaaw rek mooy waa réew mu ban yitte lañu am ci liy doxal seen réew nga méngale kook ban yitte la ñu am ci li nga xam ne moom la ñu tuddee fait divers débat politique bi ci lii la war a porte waaye du Moustapha Guirassy cravate bi mu sol diw oto bi muy dawal lii lañu war a waxee ndax lii tey jii dafa méngoog bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal wala dundal bés bi nga xam ne lorange bi gëna mag ci bi ñu xam ci lorange bo xamne wala ci yi gëna mag yu am ci bir geej ci la bok moy kérok bi batalo jola di suux tay mu ak mom ñu bari sax newoon nañ ñu premier ministre warul organiser conférence de presse ci bëss bobu ma japp ni nak organiser ci bëss bi sax dafa am sens dafa am symbolique ndax li waralon tragédie bobu wessul lu mel ni mooy autorité yu yor responsabilité yor alalu réew mi wala ñu def mbir ma fu ñu ko war a def ak ni ñu ko war a defee ñu ñàkk koo def ci càggante wala ci teef ba mu jur musiba tey jii ñu ngi wax mbënd mi mbënd mi lan moo ko waral lan la ñu def ci at yi weesu yépp ci milliards yi nga xam ne ne nañ dugal nañ ko ci lu dul li ci ëpp ay nit a ko damm seen poos da ci ëpp ay nitu ko damm seen poos ñi ngi wax mbirum xale yi jël gaal gi la ko waral est-ce xam ngeen ni li gën a ci lii mooy mbir bi dafa am ñaari pàcc dafa am jël lu ëpp nëbb ko askan wi muy lu garaaw a garaaw te ministre de justice na ci wax léegi jël lu ëpp ñu ne la loo jël rek war nga koo bind loo génne rek war nga koo bind nga jël téeméer bind ni juróom fukk laa jël loolu war nga askan wi war nga ñi nga xam ne wóolu nañu senegal ba jël seen alal di ko di ko dugal ci réew mi donte dañ ñuy lebal nag waaye ki ngay lebal day fekk nga yaakaar ni mën naa fay waaye loolu benn pàcc bi rek la beneen pàcc bi gën a garaaw mooy gannaaw bi ñu defee loolu ba xaalis bi dugg milliards yi dugg mooy pexe yi ñuy def ñoom pour li bëri ci milliards yooyu au ñu yóbbu ko fi ñu waxoon ni fa la war a jëm ñu fexe ba détourné ko dugal seen poos loolu nag ci fan yi di ñëw dañ ci gën a génne ay détails ndax li ñu génne ci alal ci réew mi yéen a ngi dégg ay ay ay ay ay ay milliers de tonnes de de kilos d'or loolu lu tuuti la ci li ñu génne ci réew mi te lépp nag ci alalu réew mi la lépp ci alalu réew mi la waaye foofu loolu fu mu jóge xaalis bii ñuy wax waroon dugg fi mu war a dugg ñu dugal ko feneen fu mu warul dugg ba pare ndax sénégalais yi ndax suñu partenaire ne jëluñu xaalis bu tool noonu waaye lu gën a néew loolu la moo tax débat bi ci lii la war a porter peuple bi lay waxal bu ken kenn divertirati ci wax bu amul solo Li motax senegal nek ci niveau bi mu nek li moy suñu defi ñun motaxone mu jaadu bala ñuy dem fi ak fukki fan inshallah allah ndax dégg naa gars amuñu programme projet bi amul ñom ñukay wax sax gëmuñu ko ndax ño gëna xamni projet bi amna waye lepp dañ koy tek ci fii fukki fan gën sa guddu suma juumul danañ ñew andil leen maintenant projet bi nga xamne mom lañu présenté won ci programme président Bassirou Diomaye Fay ñu andil leen naka lañ koy farañ faccé patch par patch ak naka lañ koy doxalé <coughs> mais ñu won dem ci lola te defuñu li ñuy def ni muy lu am solo motax ñi nga xam ne nag ñooy ndeyu mbill gi ndax taayale génne nañu livre blanc defe naa ñun suñu génnee livre noir très noir lay doon waaye ñi nga xam ne ñooy ndeyu mbill gi ñoom nañu génn tontu bu dee li ñu wax amut ndax lii def nañ ko ba mu pare ñu partagé ko ak suñuy partenaire fonds monétaire international jot na ci banque mondiale jot na ci la ñu war a def def nañ ko te lu nit mën a vérifier la ci anecdote bi élection bi passé boobu ñu ngi fii hôtel Azalaï président ne ma il faut ñu wax ak ministre finance finances doo ko woo ma laajte numéro mu woo ko ne ko dañ la soxla mu fekkuñu ñu ñu ñëw daje foofu boobu amoon nañ suñu njort ba pare waaye bi mu ñëwee xam ni caaf xëm na ba noppi ci biir waxtaan bi lañu ne way dette bi demeewul noonu dañ koo xaw wàññi déficit bi dañ koo jaxase waaye demeewul noonu ñu ne ko waaye yow loolu noo ko mënee bind ci budget bi ba noppi ñëw fii taxaw naa ñu dem ça veut dire que su doon yéen yéen a jàllaat boo moytul Sénégalais yi duñu gaaw a xam ni nii la demee te balaa ñu koy yéeg rek mooy c'est trop am na sax masse salariale bi te boobu ba léegi. service ministère des finances ñi ngi continuer di jeex ci biir budget bi ndax dañ ko tassalé dugal ko ci ay ligne yu bëree bëri bëri ba nga xamné jafena dajalé naa nak lu garaaw graw la motax ñom ñi nga xamné ne defe rek war wax fi mu toll ni ñi jaar fi ci ministre des finances di Amadou Ba di Abdoulaye Daouda Diallo di Moustapha Ba ak ki len doon sant muy président Macky Sall ñoom rek ñoo mën a taxaw layoo imma ñu nangu ni nii la demee wax nag li tax ñu def ko imma ñu ne demewut nii nañu génne les preuves ndax écriture yaa ngi fii kon loolu lu am solo la te ñuy wax askan wi nii lii andi lii ñaare mooy yàkkamti ku ñu fal rek yaa ngi ci horizon électoral ah d'ici 4 ans d'ici 5 ans dañu war dem élection té il faut gaw gaw gaw ma tabax ben stade wala ñaari immeuble pour ñu né waja ngi liggéey réew dañ koy tabax ci tay ak dal brique après brique bo buggee am kër gu deugër bu dee tappale nag noonu mënoon nañ ñew def li ndax biñu togué fu dé la bailleur di joggé yéen a ngi gis image chaque jour ñu recevoir des bailleurs yu jël sen jet privé ñew waxtaan dem kuñ ci waxuloon lii ne la ñëwal dugal sa xaalis léegi mu indi xaalis bu dul jeex bi ñu toogee léegi xaw ma ñaata offre spontanée la ñu jot suñu neexoon ñu nangu ko ne parce que dañoo soxla gaaw-gaaw Sénégalais gis ni tabax nañu ñaari ñaari tali ak ñetti teen waaye du noonu la ñuy tabaxee réew moo tax peuple bi ci boppam moo war a jóg ci niveau boobu waaye mbokk yi lii garaaw na. man dama cee am nakaru xol parce que ñàkk bëgg sa réew mënul weesu li moo tax mënuñoo woo askan wi ne ko nag li ñu yàq bëri na foogoon nañ ni tool gi ñuy jox da ngay ñëw rek bay ji ñu ñëw ndekete forêt classée lañ ñu jox faaw rek nga am liggéey bu bëri boo def doo ko mën a ji waaye ñi ñu dugal ci loolu il faut balaa ñu daan askan wi ñëw leen ñu takk suñu ndigg ñun ñëpp pour defar lu ñu yàq jaadu na ñoom ñu la yokk askan wi euh, wax rek ni lay lay suñu responsabilité ñun nañ ko def ba mat sëkk ba ci njëkk mooy ni ni ñu yore woon réew mi xam na lu fi njëkk a jaar waaye ñun ñëpp gisoon ni ay tappale la wala politique la woon ñun nag lépp day tegu ci yoon moo tax léeg nga dégg nit ñi ne mbir mi dafa yéex dara yéexul yoon dafa am lu muy doxe waaye képp koo xam ne ci anam yii ak yeneen anam ndax wax naa leen ni lu bari ci xaalisu réew mi dañ ko war a ndal ñoo ngi ko jaarale ci suuf si ña ngi ko jaarale ci lempo gi ña ngi ko jaarale ci euh, certificat nominatif d'obligation yi ñu ngi ko jaarale ci rachat de créance yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne seeni pexe ak fi ñu ko jaarale xam nañ ko liggéey bi ñuy def nag day ànd ak tey ak dal waaye askan wi na xelam dal ni ñi leen teg lii dinañu la yokk moom ñaareelu pàcc bi muy lu am solo mooy gannaaw bu ñu waxee askan wi dëgg parce que dëgg gi ñu wax nag dafa am lu mu mën a àndal ak conséquence ndax lu bëri si ñi ñu doon jëflanteel ci bitim réew te ñu wóolu woon Sénégal ba tax ñu jël seen koppar di ko fi joxe mën nañu dégg lii mu tiital leen mu tiital leen ñenn ñi ci ñoom ñi gën a mag lu mel ni Fonds monétaire ak Banque mondiale waxtaan nañ ak ñoom ci waxtaan bu xóot. léegi ministre wax na ko rafetu nañu taxawaay bi ak ak jëfin ji donte li ñu dégg tiital na leen tuuti waaye rafetu nañ ko li ñuy wax effort de transparence bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye def wax nañ ñu it ni dinañu ànd ak ñun ci mesure corrective yi nga xam ne faw mu am jox ñu it seeni xalaat yu bëree bëree bëree bëri kon la ca des mooy askan bi parce que man dama musuta gëm ni lay defar réew mi day jóge ci biti musuma koo gëm loolu ndollent la rek waaye da ngay def li nga war a def ba noppi lépp li nga war a dajale ci biir te réew mu ne nag yàlla def na fa li war a tabax réew mi moo tax su ñuy wax saytuwaat yenn contrat yi convention yi ci loolu la jub jublu bu ñuy wax ni askan wi sopp nañu képp kuy citoyen mu xam ni lempo gi muy fay mooy tabax yoon mooy tabax hôpital waaye loolu du jóge ci ci poosu Basiru Joomaay Fay ci ci loolu lay dugg suñu nee yenn yi nga xam ne yombal gu ëpp la woon nuñ koy xoolee ba gérer ko ci loolu la dugg waaye suñu nee nguur gi ci boppam ni mu doon dundee yàq gi bëri na ci dégg naa bi ñu waxee nii yenn yi nga xam ne lu ëpp la ci ni ñuy utiliser nañ ko wàññi ñenn ñi naan loolu ay détails la ñàkk xam la boo demoon États-Unis wala nga dem France wala feneen ak feneen ñoo ñu ëpp alal foofu te lii ma wax nii noonu la seeni service di doxee kon lañuy xaar ci askan bi moom it mooy mu takku ndax am na njiit yi mu war a am de ma waxaat ko fii léegi bàkk président Bassirou ay fay parce que bi ñu gisee lii bi ñu defee liggéey ba pare gis ko daje nañu moom ministre de l'économie ngi fi moom secrétaire général mu nga fi ministre de finances nga fi yenn directeurs générau des régimes financiers ñu nga fi ñu ne ah li ñu gis te doy na waar te buñ ko waxee mën na jur lii ak lii ak lii ci safaan ba moo am sax ñu xalaatoon ni tey ñu ko nëpp nëppal tuuti waaye président dafa ne du ma mus a fenn sama askan xam lii nëbb ko mooy fen nañu askan wi te bu ñu fenee askan wi la des ci mandat bi yëpp dañuy obligé di continuer fen te man duma doxalee noonu kon dañuy wax mbir mi luñ ci góobe gar ko bu dee ñi ñuy jëflanteer ci bitim réew loolu tax nañu tiit wala ñenn ci ñoom ba xaw bank seen loxo ñu xam ni noonu la demee daal di takkaat suñ digg defaru lañu ñu waroon uti feneen ñu essayer ko liggéey fii mais loolu day supposer sénégalais bu nekk comprendre enjeu yi xam ni am na njiit yi mu soxla woon maa ngi koy wax fii ci mandat bi sàcc ak détourné du fi am wala ku ko def it sa place ñëpp xam nañ ko jël loo moomut du fi am orienté mbir yi ci lu dul farata du fi am te kuñ fi tabb dinga liggéey ba mënatoo kon loolu rek la askan di xaar ci ay njiitam waaye njiit ñi la la xaar ci askan wi mooy suñ leen woowee ñu wuy si ko ñaar yooyu bu dajee rek ci diir bu gàtt gàtt gàtt dinañ soppi suñu réew ba nit ñi jaaxle kon loolu lu mën a ne la lii ñu wax ni tekkiwul ni dañoo nekk ci njàqare wala défaitisme déedéet dañoo bëgg rek ñun ñu yépp ñu bokk xam ni fii la

nous donne un tournant mystification jeex ci réew mi dañ doon wax ay homme politique naan c'est un homme d'expérience expérience bi mi ngi c'est un homme d'état homme d'état bi yëpp mi ngi ni réew tappale ak wax lu deug dëgg ak randal alalu réew mi du ko defar